Eh, mbokki talibé yi ñoo ngi di santat serigne bi bu baax ci tawféex gi ñu am eh, ba wat waxtanu jeewriñ universel sëriñ Saliou Samb sëriñ bi ñu le siyaare bu baax yàlla ñu serigne bo di santat serigne Saliou bu wër ci sa waxtanu am solo wi nga defati te mu bari ñariñ lool ci képp ko xamni ànd ak sëriñ bi yitteel na la nga tànn thème woo xam ni ñépp la concerné nga indil ñu ko ni ñu ko indilee ci ñaari mbir muy feeñal ci màggug sëriñ bi yàlla mi nga xam ne daa ñëpp da ko dàq mooy ragal ak yàqamti nga andi ko définir ñaar leer ci bopp yépp tubaarkàlla euh, nga delluwaat nag indil ñu waxi Serigne Saliou nga xam ni ni ko yàlla dàqe rek noonu la ko dàqe loolu di feeñala nga xam ni mooy li njëkk li ñu jàng rek ci wax jooju ndekete ya, loolu yi nga xam dal daal yàlla du ko àndeeg benn mbindeef sëñ sa foofa rek ñu mën a xam ni Serigne lañ njëkk jàng ci sa waxtaan yi ci ñi nga xam ni euh, dañuy ànd ak yàlla indul ñi itam ragal ak yàqamti li mu mën a xañ ab jaam ci diggam ak boromam loolu itam bi ko ëndee ci mbirum yàlla ba noppi muy ci ab xam-xam ak wu yeeg xaari fii kenn ku ci nekk kàddu yëm ci ëndi nga indilaat ñu ko nag ci lu ñu gën a jege sunu gii nuy dund sunu diggante sëriñ loola nag nekk loo xam ni daa waxtaan bi matale sëkk gën ñoo jege te gën a nag sunu taalube gën a ñoŋalaat sunu taalube ci ab xam ci ab xàmmee ci ràññee ci gën a takkuwaat ngir bàyyee sëriñ bi sunu bopp te bañ ragal te bañ a yàqamti loolu nag am gum am solo tax na ñun ñëpp amel nañ la ci amel nañ ci sëriñ bi ak jant ci jaar gum ko jaar ci sa jëm ji euh, di la ñaanal nga gën koo mën te sëriñ bi gën a yokk sam xam-xam dolli la ko dañu mhm. nit mu gën ñoo may mën a teewlu mën a jàpp te wax ji mën a doon suux si ñun ba ñun ñi nga xam ne ànd ak moom rek lañ bëgg faw ah, loolu mu ñu ko taw amin waay yàlla nañ ko bokk amin ndax ñun day sëriñ saaliwu day képp ko ànd ak yow képp ku la topp lay wax yéen ñi ànd ak moom yéen a ngi sama biir yéen ñi ànd ak moom seen dara génnuma képp ku la topp dina ma noppal tay ji ak ëllëg gënu jëm te dina def lu ma neex topp gi ngeen ko topp ak déggal gi ngeen ko déggal sama ndimbal la sama noflaay la mu mel ni yi ëpp ci Serigne Sali wax da ko tënk ci benn baat muy baatu ànd ak sëñ Bacco kon bu delloo moom Serigne bi wax ni ànd li may bari bari yërmande nga xam ni du ma tàqali du gi ba faw waye nak sama len bëgg a yóbbu mom ci sama bop foofa mom képp ku ragal do fa ag ku ragal it doo fa yakam do ku yakam ci it do fa ag nga xamni Serigne salihu du du sanni mukk ay wax il fait le choix des mots su waxe ragal lek kon jamono jojja batu ragal moy li fa wara ñew su waxee yàkkamti it jamono batu yakam ti moy bat bi wara ñew ndax Serigne salihu ku deglu ay waxam te setantal ko xamni il fait le choix des mots mom rek dig ab lang ndax mo sak lang yi ya, tax ma ragalo cheikh bi ne ko dedet mbàkke ma yakamti wo cheikh bi ne ko dedet mbàkke mo ne ko sallahu day duma and ak ko ragal duma and ak yakamti nga xamne ba baatu ragal ning ko fi duñ ci delu ci ndax priwin wi da leer tubaarkaal la dafa ñu ci jox ay exemple yu concret ndeki kep ku xas xam deug baa nga ànd ak yàlla ci dëgg am ragal dalaa waratul ndax ragal day mel ni da nga wóoluwul sunu borom te ab ragal sunu borom a ngi ñuy jàngal ni du am ndam du am ndam tey du am ndam ëllëg ñàkk ragal moo taxoon sahabatu rasul yi mën a gàddaaye màkka génn daw madina bàyyi seeni ndey ak seeni bàyyi ak seeni alal loolu ko ragal mënu ko ak loo mën a ragal moo tax ragal yàlla rek lees fay def nga indi baatu ragal yi ni nga ko teqantalee settantal ko ci arab xam ne seytaane nag dalay mat saa su nekk ci ak ragal ragal du mën a feeñal dëgg ragal bu ko yàlla wonee dëgg yi du ko mën a feeñal Donon bur buur na mak ci dekk ba gëna a yalla yi ci adina sidna Moussa ci dekk ba mu jëf fa reuy lo xamni dañ ko dakk mu génn dekk ba waye kere bam mu dekk ba dem kër Chouaïb bu top fa fukki di di ci siwaat suñu borom da ko digal ne ko bo démé na nga dem nga jubal ca palais da ba nga wax ak mom xamal ne ko mom du yalla man mi ma yalla Moussa la xelam njëkk a dem mooy ay yàlla xanaa yàlla daa fàtte ni foofa la ma fa jëflante woon ak nit ña ba ñu génne ma fa ndeke booba sun borom mi ngi koy xamal ni képp ko ragal sama mbir moom du mën a feeñ ci yàlla boo ragal mënta jam guy ndax bobu yunus bobu nap nañ ko muy wotel yalla kenn faalewu ko sun morom diko xamal ni un missionnaire il ne doit pas avoir peur bo xasse and ak yalla amato dara loy ragal motax jëmmi ragal ñun dañ cee am leçon bu doya doya doy kep ku ragal do jariñu kep ku ragal yalla du mëna ci yow ay mbir waye serigne saliw daf ñu téwon lu ne fang serigne mim ko wax wàcc dama ni ba Béthio bu doon am ragal nun dun jariñ barke Serigne Touba ndax bi muy njëkk a wax ci àddina sii ne sëñ sali yi sëñ Touba ku ko yàlla xamaloo nit boo amul fit mënu ko wax ndax booba ponkal mu ne yaa ngi ci mi réew booba ñu mën a yilif jamono ñu ngi ci mi réew booba nan fàttaliku ni booba di sëñ wu di sëñ Béthio di feeñal ni Serigne sali yi Serigne Touba booba sëñ sëñ Saliou nga xam ne doomi sëñ Touba lañ koy woowee ci sërëx ñii di ko tëg tegal ay ndëgg sërëx ñii ñii di jiim ci moom suba ba jant soo ñii di ko menacé ñii di ko sànni ay baat ñii di ko tiital ngir bëgg ko rey lépp ngir mu nëbb dëgg ndeke ab ragal mënta feeñal dëgg barke Sëriñ Tuubaa Sëñ Saaliw ne ko maa ragaloo Sëñ Saaliw mu ne ko ragaloo xamoon na ni kon ci yoon wi am na yuy tiitalaate ndeke yow Sëñ Tuubaa képp kuy tiit mënoo ànd ak Sëñ Tuubaa ndax kon dala la woon dëgg joo ñemewuta wax muy yuuxu baatam ba ca kaw Sëriñ Saaliw woy mooy sunu borom bam ko dee tàmbalee wax day tollon na jamono jot bu duggé Touba kenn ku ne bo ko rombé demon na bañ koy jour yi xéer waye ñak ragalam nga taxna na xolal fo fi mu jóge fo fi mu jóge nga xamni señ Touba la waxon li wàcce man li aidaw qana xamaa na di feñal dëgg yalla da jël non yam amon mu jël non ya bu ma ma yar non yi toll ni yalla yor waye ragaluma ben yoon yuqatuma ragaluma rafuma sumu fit dawul ndax damaa jàkkaarlu dëgg moo tax te dëgg ku sa am dootoo ragal mu ne dam da Serigne Saliou rek te waxeef mu daa wax ak moom ñi di xëcc sa mbub ma ñi di ko xoqatal ñi di ko tiital ndax booba ñu jekkoon ci ñu jiiñ leen sëñ Tuubaa dafee ne seex bi am fit bu tal ni di jiiñ koo xam ni toogagul sax xalif général des mourides mu di ko jiiñ Serigne Touba waaye ñàkk ragalam nga tey jii moo tax ñun fu nu neex fa ndax di ko moo tax ñu mel ñi nu mel ànd ak fierté mën dem ba ni seigne Saliou yi seigne Touba ñak ragalam gaa tax moo ab ragal du feñal dëkk seigne Saliou li dañ dëkk jangal mbolo ma ko daan sànni xeer ñak ragalam nga tax na tay bu duggé Touba foo sànni màtt mu tak giir Touba yépp am na fa ay daara seigne Saliou doon ko wax ni ba ragalo mu ne ko dedet Mbàkke ma yàqam ci woo nekk ab ragal mu ta and ak seigne bi ndax seigne bi fam mu jëm ay pak pak da nek ci digënté bi fam la jëmee bo ragalé rek do do do fa ag te moom ni mu lay musalee boo ragalee doo mucc ak ragal du mucc naa Muusa yàlla boo ko bëggee musal kër kii rey gone yi lu ko yóbbu yàlla ni muy musalee ak ni nit di musale bokkul yàlla ku mu bëgg a musal boo ragalee doo mucc moo tax ab ragal du dem guy barke Serigne Touba yeneen bi ñàkk ragal a tax mu mën a jóge mag Madina mën a duggaat nanu seen keur mirage miraas nanu ko faatu nanu keur ga jaay nanu ko sëñ ba seni miñ mi am fitug yëkkati kërëm genn nga jox ko sëriñ Saliou genn nga jabota moom moom wi day waxuma la ñim bokkal waaye képp ku ami kër mo la may kër mo upp kër ci adina mo upp kër ci adina ndax fo dem Touba madina salam ak rew mi ñun ñi ami kër suñu kër ay moko mom kon nek ragal du jariño mbirum suñu borom ab ragal du ñeme du jëf moo tax alxuraan ne asheytaanu yaxidukumul faqra ab ragal du ñemee jëfi ndigal ab ragal ab ragal wu a sasu ndax ab ragal du day ragal Li xew suba lan la li ndax dana ko amam du ko am ab ragal day wat ci bopam katanu bopam rek koy doy katanu sëriñ bi du ko doy moo tax ñoo jangal bindu bu am solo bo xamni ne képp koo xam ko ay dal nga sol ko sa waxtaan yu yi fa nga bëgg yegg ci sëriñ bi do fa yegg wax nga dëgg da bok ci yi ëpp solo ndax ànd ak sëriñ bi la ñëpp bëgg bagage buy tee képp koo xam ne gaale nga ak ragal ci yoon wii lu mu yàgg yàgg yàgg da nga dëppaat ndax ak ragal day màndargaal ñàkk wóolu sëriñ Tuubaa te am ragal du am ndam mukk ndax am ragal day du ñemee affronter obstacle yi nga xam ne moo nekk ci kanamam waaye sëriñ bi ñàkk ragalam nga moo tax tey sunu jàmm ñun ñëpp ñu mën koo am sëñ Saliou way sëriñ Tuubaa booy ci nopp yi muy sëriñ Tuubaa tey nit ñi tàmbale ci yow bu siiw legi ci dëkk bi murit boo ne sëñ Saliou mu ne la mooy sëñ Touba danaan la fo foofa nga toll yow ndeke ndekke yow ko ko njëkk a wax te ñu xopatal ko te tiital ko bu ragalon wax ja du jëm kaw waye fitam wi mu yor mo tay mo tax tay ñuy fandax ni ko fu nu neex dem mo tax ab murit waru ragal Waru ragal jëf waru ragal rafle warul ragal ñak mu ragalon genn kërëm luy ji ngir Serigne Saliou kon heure bi nun doon ami kër barke Serigne Touba foofu yi ca Bordeaux ca Indianapolis ca orange fii ci Sénégal ak bitim réew foo mënti dem ci àddina nekk aw fit rek am képp ragal a rafle ngir Serigne Touba diggante summi ak sol meneen li muy gaaw rafle da cee xaj képp koo xam ni ragal ngaa ñàkk ragal rafle doo sol mbub mu yees bi ngay simmi donte ne daa màgget donte ne bi ngay sol moo ko gën a yees rafle da cee xaj moo tax ab ragal du rafle ngir Serigne Touba yooyu yëpp dan ko jàng ci sa biiri wax mu doon loo xam yu concret la yo xamni exemple yoy lañuy jël ngir deugal li sa waxtan wi nim nu duggé ak ngari liñ ci jël te ñun ñëpp talubé ñu mën ko bokk bo baye nga ñëw ci yàqamti yàqamti ndekete képp ku ko def mëno doon ab kon ndax ku mën ta muñ yalla dalay won deug nga xam ko waye il faut être endurant naan lamb la keroog daa jar ba tax lolu tax mu def ko yilla def ko aada bis bu set mu fekk la fa nguru ki la mën fekk ci teen boobu daal kooka bu la dugalee ci kasso bi lo fi yag yag yag war toona tax nga yakamti ndekete ki yakamti day gis lim amagul ndax lu xassa tew ken dotu ko yakamti lu ñëwagul la yakamti te day da doon jikko bo xam day tax do doon ak kon yakamti, kep ku ko def do mën muñ la yonent bi yalla doon wax yonent bi asbir ala ma yaquluna واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب اك ان الله مع الصابرين ñi nga xamne dañu patient dañu endurant ñoo ñu yakamti wuno luñu fi metti metti ak lum tar tar tar ñoom luñ ciy gis mooy sant yàlla ci waxtu wii nu nekk ku yàqamti doo mën muñ te ku mënta muñ doo yegg mukk ci garaatu cantaakoon da ngay muñ ba mun nga nga dem ba yëgatoo far lu metti looy muñ ak lu ñëwagul loo war am ak loo xamagul te war koo xam dootoo soññ sëriñ bi ci sa bopp dootoo soññ yàlla ci sa bopp waaye ñàkk a moo tax sëriñ bi ànd ak patience dëgg tàmbalee feeñal mu yàgg a feeñal sëriñ Saliou tubaab mi moom yoon wi moo koy loola day balaa moo am ñu ko ci gunge naa def na ak diir de jiñ nañ ko bi yëfër ci réew mi jiñ nañ ko jaahil ci réew mi jiñ nañ ko ko jàngul ci réew mi ko koo xam ne daa topp bakkanam ci réew mi jiñ nañ ko ku beew jiñ nañ ko ku yëg boppam jiñ nañ ko lu ne ndeke yoo boobu yàqamtiwul ndax xam na ne ay million yi nit a ngi ñëw te dinañ gindee ko ci dëgg gii ndeke ko yàqamti da ngaa war a ak patience waaye tey mii riire di ko wut si fépp fu mu taaw ay junni waaye boo yàqamti woon it loola noonu nekk administrateur civil de classe exceptionnelle dem bay retraité amoo oto boo war waaye nekke bu yàqamti woon oto bu mu war bay jëndali boppami oto mi mu ko demal ci mu doon lu kenn mësta am loolu bu yàkkamti du ko am bu day jël service rek tàmbalee gaare ay parking waaye defut nonu. sëñ saali woo jox ndigal ni mu di ci ne ba keroog muy retraité sëñ Béthio liggéey tey lay dakkal liggéey boobu mu ne ko waaw mu ne ko moom day lu mu am jox na ma ko dégg sax ban ko lañ koy jël mu ne ko waaw mu ne ko lu am man la ko bëgg sama oto nga yóbbul ma ko fa am te jox ko ko bugguma bu génnee ñu koy yóbbaale bugguma bu génnee muy dugg oto bu dul otom ah loola ku yàkkamti du ko am ndax ku yàkkamti day yàkkamti ay xéewalam bay gannaawal liggéeyal Serigne Touba bi ngir defal boppam ndeke boo yàkkamtee doo am duna yoon yi metti na pak pak yi nekk na danoo jegewaat tey danoo jegewaat Serigne bi nag patience am boobu ak mën a muñam googu da koo ànd ak ñun moo tax ñun ñu war a xoolaat sunu bopp lanu sëñ bi boko woy ak cant moy tal otoom def ci carburant and ak yow ci sa cant muy ñibbi moy jëlat carburant ñibbi lu la kenn addiya te jamono jooja sëñ bi xamoon na ni da nga waron nek ko xamni aji joxe addiya nga waaye musula ko laaj da la bàyyi rek di and ak yow ci patience di la tété ngay joxe togg àllar bu fukki deureum te wóoroon nuko ni war nga tambalé nak dajalé ay milliards waye deful loolu déedéet magal ah, ngay joxe ay magal ay nagu 150000 nagu 100000 nek ndekk yow na ko cinq cent mille sax doyul danañ ko weesu waaye tànk ndànk-ndànk wóoroon na ko ni da ngaa war di joxe addiya jëfu cofeel waroon na la ndax ci ak taalu bi la bokk te moo koy jàngale waaye mu lay jox benn par benn di la te tette patiemment ragal du ànd ak moom ku yàqamti du ànd ak moom ñu war ci jang nak bu nu soñu suñ tuba ci suñu bop ndax képp ku yakamti da ngay yakamti lu bo yakamti lu ya ngay bëgg lo amagul ki bëgg lo mu amagul toll fofu te di ko wut kooka du mës sant ndax kuy sant du xol liko yalla xagn liko yalla jox rek lay xol loolu da koy doy sëkk walis muy bëgg leneen ci sëriñ bi rek lay ne motax sa bind bi dañuy ñaan sëriñ bi sol nu ko ñëpp ragal nu bañ a yàqamti lu yoon wi gudd gudd nu ànd ak aw fit waaye ñu bañ a yàqamti lum sori sori ñu bañ a yàqamti lum nu tiitloo tiitloo lu àdduna yëngu-yëngu ñu def dese sunu fit te fit mooy ñemee sóobu ci liggéey liggéeyal Serigne Touba ñemee dëkk loo xam ne wóor na la ni mënoo ko waaye saw fit a tax ndax da xam ki nga àndal dëkk jim doon ak ni mu mënee lu ne waaye loolu yi nag mi ngi mi ngi leer mi ngi naan fang nag lu nu gën a dem mu naan fang ñun nag comme bind bii day bind bu am solo boo xam ni ñun ñëpp dañuy ñaan sëriñ bi dimbaleenu ak mokal ko def ko muy suux ci ñun mo and ak ñun ci sunu talube ndax ñun and ak mom rek lañ bëgg ba faaw ci ndimbalam ak yërmandeem moo tax sëñ Sall yow mi ko sëriñ bi jaar ci yow duñ def lu dul ndokkel la duñ def lu dul jukkel la duñ def lu dul ñaanal la nga gëna yok ndax bo kat muy sunu yokkute ñun ñi lay teewlu kat sag yokkute sunu yokuté wa lo ci mëna daj dal ak loo mën a jukki ba génne ko ci ndimbalu sëriñ bi ñun ñuy teew teewlu sunu yokkute lay doon ndax saa bu nu dégloo daal di yokk mu gën a ñoŋal sunu taalube kon yii lii ngay def ci ndigalu sëriñ bi yàlla nga ko gën a mën ñu ànd koog yow sëñ bi te jaamu sëriñ Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér jëmmam ji ñu miin te mu yees fekk yàlla fi yàgg.